Euh, salaamaaleykum maa ngi tudd El Hadj Aboubacar Diallo mais ñu ngi ma gën a xam ci turu Boubacar Diallo ko euh, judoka la à la base euh, je suis un des précurseurs du MMA au Sénégal ak jujutsu brésilien plus précisément parce que foofu la foofu laa spécialisé wu mais en parlant de MMA xam naa xam naa luy MMA dëggantaan parce que jot naa def ay combat am naa ci benn petit aperçu bu mag à part loolu def naa carrière bu mag ci judo parce que j'ai été plusieurs fois championne Sénégal def naa ay championnat d'Afrique def naa ay championnat au niveau de l'Europe am na yoo xam ne ni jot naa ko gagné bon Lionheart Initiative pour ñi ko xamul benn benn association la à but non lucratif mais li ko gën a tax a jug mooy développer MMA les sports de combat ici Sénégal MMA ci la bokk Muay Thai ci la bokk Jiu-Jitsu brésilien ci la bokk parce que mooy aar yi nga xam ne ni lu ci ëpp moom la ñuy utiliser ci MMA mooy yooyu la ñu ëpp lu ñuy utiliser pour euh, mën a def MMA Lionheart Initiative pour ñi ko xamul mu ngi juddu en 2013 novembre 2013 lañ nekkoon seen premier événement fii ci Sénégal mais ñun nu ñuy liggéeyee ci MMA c'est un peu différent par rapport ak gaay parce que ñoom gars yi lu ci yëpp organisation organisation euh, xaalis ci ginnaaw moo leen intéressé nous c'est pas le but nous le but but bi ñu am foofu mooy ñun comment faire pour développer le truc ici en Afrique parce que xam nañ ni y a potentiel et y a les capacités pour être champion au niveau international ñun nan la ñuy dimbalee nit ñi pour dem ci loolu moo ñu gën a intéressé euh, nan la ñuy dimbalee nit ñi ñu def ay stage Muay Thai gratuitement nan lañ leen dimbalee ñu def ay stage jujutsu brésilien gratuitement ak nan lañ leen dimbalee ba orienté leen pour ñu mën a def MMA parce que MMA ku ko xamul il faut minimum nga boole ñaari arts martiaux yu bokkul soit judo ak boxe soit boxe ak lutte wala leneen ak leneen mais foog nga relier pied ak point ak partie au sol bi yaa xam nag transition bi noo koy defee il faut il faut ñoo xam loolu du xeexu mbedd xeexu stratégie la parce que boxe la taekwondo la kickboxing muay thai judo ak partie bi gën a essentiel parce que Royce Gracie wane na ko quoi en 93 ba muy ñëw ci benn guddi mu def défier ñoo xam ne ne ay champion feneen lañ pour wane partie essentielle bi nan la important wee ci ci ci MMA bi ñu bañ ko pour ñu bañ ko négliger ñu bëri dañ koy gis ci ring mais en réalité MMA du ring MMA cage la boo xam ne nii daf lay séq amul fooy daw génn amul fooy làqatu yow la sa adversaire ak arbitre bi mën nga bañ a fekk nit ki ci domaine am taxaw ci sa domaine ba gañe ko mais loolu lépp calcul la parce que comme ni mu la ko expliqué sànq bëre la boxe la combat au sol la te loolu boo ci mënee benn xam ci noo ci noo nan ngay xeexee par rapport ak loolu mën nga gagner sa combat facilement mais je sais pas si les athlètes après ils sont utiler pour ça walla ñoom ils sont près pour ça parce que bu nekkee dañoo yaakaar ne affaire bi xeex kese la du yomb ñu gagné parce que quelqu'un ku préparé wu ñetti niveau yooyu yow nga préparé wu benn niveau du yomb nga gagné ko parce que moom il est prêt à changer de système boo ñëwee tegal ko xeex moom mu xam ne xeex bi yaa ko ci mën mën na lu dugal ci bëre. mais foog non foog naa ni ku nekk mën nga ci am sa chance vu que xeex la te kawo dafay am. kawo fu nekk lay jóge kawo mën bu ci amee mooy xeex bi jeex na mais pour man amoo mon avis pop sama xalaat laay joxe mbër yi amaguñ ci chance parce que seen xeex setul seen combat au sol reste à désirer ñoom fi ñu xam mooy nit ki bu daanoo jeex na or fii nit ki bu daanoo ca day continuer mën nañ la xoj mën nañ damm sa loxo mën nañ damm sa tànk loolu lépp da cee am kon alaya yooyu yëpp foog nga bàyyi ko xel affaire du bëre kese du xeex kese du sol kese ñett yooyu noonu yëpp ngay mën a boole xam fan nga ciy taxawee. en tant euh, euh, mën naa wax ci moom lu bëri. parce que il a eu à faire ses preuves carrière am ku ko gis xam ne du carrière bu ndaw mbapat la jaar ku xamul mbapat mooy bëri bëre simple jóge foofu dugg ci arène bi sport de combat lutte libre euh, sport de boo xam ne tànk amu ci mais dóorante yu safa ci à main nue ce qui se voit pas loolu kenn du ko gis feneen ci àdduna fu dul fii ci Sénégal sport boo xam ne nii dañuy xeex c'est reconnu par l'État c'est reconnu par tout le monde boo xam ne nii on se bat à main nue donc foofu ku amul yenn capacité yi munoo ci àgg benn niveau bi te Bombardier je crois qu'il est allé jusqu'au summum fi fu ci nit bëgg àgg ci ci ci wàllum bërëb googu àgg na ci maintenant il est en train de faire sa transition vers un autre sport boo xam ne ni c'est quelque chose de nouveau pour lui foofu la foofu la danger nekk comme foofu tamit le enjeu bi nekk mooy nan la ñuy def ba mu juge nan lay def ba juge ci bëre bi dem ci MMA bi te du ko yàqal benn ci ñaar yooyu capacité yu am fii mën na ko indiwaat fële ba conserver lam li mu newoon fii te du changer li mu doon parce que lépp boo gisee li mu la wax sànq c'est un combat stratégie stratégie kese la boo xamee looy def boo xamee fooy taxawee ak nooy defee mën nga gañe ku nekk li jëm ci Bolinski euh, li li jëm ci Bolinski foog naa enjeu bi gën a mag pour moom mooy faire le combat fii au Sénégal face au public de Bombardier et bu amee lu muy sonnalee Bombardier foog naa benn parti lay doon pied mais du doon bëre du doon partie au sol parce que gëm naa ni Bombardier am na benn expérience en judo am na expérience en lutte euh, am na expérience en en point léegi partie bi ñuy gën a xalaat moom lañu biñ koy tiital mooy côté tànk yi côté boobu lañ koy tiital. te du ñu du loolu buñ ko xeeb du parti bu ñu négligé parce que kaw yu bëri yi nit ñi di jël ci côté boobu lay jóge parce que tànk du loxo tànk du loxo nañ ko nañ ko waxaat tànk ci bopp ay loxo téewu ko il faut ñu comprendre loolu kon il faut déjà garde bi dafa importante euh, après revenir ci positionnement par rapport ak euh, ki muy xeexal da ciy am importance parce que am na loo xam ne ni bu ko coup boo xam ne bu ko jëlee ak lu gabareem fort fort fort dana toog parce que puissance kuy def cent kilos wala cent cent cent kilos plus ci tàngam mënul yem ak yow boo defoon deux cent kilos boo ko jëlee ci bopp dangay ngay toog kon bu dee am na lu ñu koy tiital côté boobu lay doon à loolu man gisuma côté boo xam ne ni Bolinski bien qu'il soit un champion gisuma côté boo xam ne nii il pourra euh, avoir des outils pour faire face à Bombardier gabareem rek xeex la déjà mais en revanche Bombardier il faut mu bàyyi xel ay tànku nit ki waaw non man je donne jamais de favori vu que c'est un sport de combat je donne jamais de favori parce que benn ku mën na ko jeexal xamoo ci kan lay jóge xamoo kee lan la indi xamoo kee lan la indi mais le mais mooy faut faire attention au coup ci bopp ak partie bu ñuy négliger ci yaram parce que ñëpp dañ koy xeeb mais moo gën a gaaw toog loo nit xam naa li may wax jot naa ko ay yoon jël naa ko ay yoon mais ku au corps moo gën a dangereux fukki yoon ku ci bopp parce que coup ci bopp da koy gis mu ñëw ku ci yaram bu la dalee ngay doog a xam li xew